bàjjan ba soxna may xadim yëpp nga balaqi ngërëmam bisam bi yaa doon jëwriñam aka bëggoon seex muntaqa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki juri ñuy seetaan di ñu déglu ndigal bàyyikoo na ci xalifa général di murit sëriñ tubaa seex mouhamadul muntaxa ñëw ci seex mouhamadul basir mi nga xam ne moo toogee jataayu maam Thierno Birahim ñëw ci alaaji maam Thierno Mbakke may xalifa sëriñ seex awa balla Mbakke ñëw ci sëriñ moodu mahfous Mbakke moom sëriñ seex awa balla mii xalifa soxna Maymuna Mbàkke bintul Xadim borom laylatul qadar di waajal nag bis bu am solo bis boobee nga xam ne saa yu weer koor teroo xel yëpp ak xol yëpp ak xalaat yëpp dëgmal ko muy bisub laylatul qadar mu war a nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril yemook ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor ñu di ko amale ci tubaa Asalem ak ci Touba Mosquée kër soxna na ñu fi daan wax ak ñu daan ñëw ñëpp. sëñ baa ngi leen di soñ mi ngi leen di woo ndax na dafa nekk ci noon jëwriñ ji waaye moom ñëpp ñoo ko bokk ndax dañoo bokkoon soxna may bokkaat sëñ bamba ñu bokk jàpp bis bi Laylatul Qadr nag bis la boo xam ne bii àddina bépp maase na xam ko te soxna may moo na gannaaw yàlla ci moom la jaare ba bu ñu waxee Laylatul Qadr ñoo jox soxna may moo na kon soxna may moo na bisam boobu ma daan def di ko woote fii ci te daaruwaab muy dem ba nit ki Tuubaa at muñ ko defee fii sëñ Saliou Mbacke dikk na fi ak Cheikh Amadou Mourtala ak ñu bëree bëri ci ñëbatu sëñ Touba ndax soxna si lu mas a nekk waa sëñ Bamba gépp nekk ca ginnaaw loolu nag noo ngi soññ nag ñi nga xam ne ñoo di taalibé yi Serigne Mahfouz yi yore tool yi ba ak yi jëwriñ président daayira ak ñoo xamante bi dañoo bokk di liggéeyal sëñ bi déglu ndigalam yaakaaruñ kur moom àdduna ak alaxira tey ñaan ci barke sëñ Bamba ak borom daaru ak sëñ Modou Mahfouz yàlla na ko fa yàlla yàggal te wér ko weeru bi mu teroo sëriñ bi tàmbali na ab liggéeyam ni ko soxna si daan defe muy jàngalu alxuraan ak jàng xasida ak salaatu ala nabi lépp mi ngi koy santaane ndax soxna si ci la daan dàkk dàkk bëggu sëriñ bi daan ko ci liggéeyal sëriñ bi itam di ko soññee ci daaray kaamil yeeg jàngkati xasida yeeg bàyyiwul kenn ak fu waay man ne fii ci réew mi ak bitim réew lépp lu ci waay man na nga ko def ndax sëñ rek lañu koy liggéeyal nee na itam e, mi ngi soññi daayira yi ci des muy dëkk boppam bee di Daaru Wahab ak dëkk yi ko war ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññi bu nga xam ni daayira yi fi ne sëñ Jaga Faal leen jiite nee na ngi leen di soññi waa Madiane ak soppee soxna ma yi daan ñëw ci bis bi ne ñëpp ñi ngi leen di soññi waa dëkk béet waa koñ bii di aslem gii mu téete ngi leen di soññi fu ci waay mën a ne nga ci jàpp te xam ni liggéey la boo xam ne sëriñ du day jëwriñ ji waaye liggéey bi ñun ñëpp noo ko séq ndax sëñ Tuubaa la ñu liggéeyal soxna may sëñ rek la doon liggéeyal ñi ngi soññi itam daayira nga xam ñoo nekk bitim réew ci diggante jàng alxuraan ak jàng xasida ndax réew mi liñ ci man lépp ñi ngi koy def ci daara kaamil yi maa ngi koy yëgal ñi ma bokkal xasida yi ñëpp di ko tàmbalee ci suñ jëwriñ ji sëñ Alioune Diop daayira xidma ak mbooleem kuréel yi ci réew mi ak foofu druskat nekk bu dee druskat yi sëñ Abdou Guèye Rijaal daaray fulku ji ñu ngi ko koy fàttali ak lim jaboote di ko fàttali tamit e, kuréel ma Mafatihal Bichri bi am sëñ Cheikh Fall ak sëñ Xaadim Diop Naim ak sëñ Xaadim Cissé séq ko ñoo ngi leen ko yëgal di ko yëgal suñ bokki jànkati xaside yëpp duruskat yi buñ xëyee nañ koy yendoo bu guddee tamit noonu lañ ko bëgg a fanaane ànd ak ñaagum yëkkati ci ndigal sëriñ bi. man na kàddu yi may jël maa ngi koy jëm ci borom da ñi nga xam ne ñoo yor ay daayira di yëngu di sosi ca kër yi nga xam ne dañoo sasoo bu lay doxatat jógee ñu fas yéene ànd ak ñoom ci bés bi di ci liggéeyal soxna May di sàkku ngërëmal sëriñ Tuubaa ndax soxna si dafa wax ne bisam bii bis la boo xam ne xam na xel na yàlla gërëm na ko sëriñ Tuubaa gërëm na ko ku yàlla nar a gërëm sa jëf rek moo ciy jëf daayira yi itam xamee ko noonu di ci jëf maa ngi sañu sa bopp nag ci daayira yi di leen soññi di leen wax ne bis bi seen bisa kenn jiituwu leen ni jiitu luñ ci kenn teg leen ci. su ko defee kon xam naa dañuy soññaat rek daayira yëpp ci ndigal li nga xam ne moom la ñu soxna may daan jox te njabootam gii jox ko. muy ñu war a taxawee bis bi taxawaay bu rafet a rafet a rafet mboolem kuy ñëw ñu jàpp na suñuy gan lañu yaatal gan yi te xam ne kilifa yi liñ ñuy jox danoo bëgg ñu jox ko gan yi ndax soxna May saabu bët masaa saa set la muy njëkk laaj mooy mbaa xéewal yi doy na ñu ne ko waa waa Mbàkke mu ne mbaa joxe nañu lépp ñu ne ko waa waa kon nag loolu la soññaat suñu bopp di ci soññi ñëpp yaatal gan ñi koo gis rek nga jàpp ne yaa ko war a teral su daayira yëpp doxee noonu kenn ku ne jàpp ne yaa ko war a def rek li bëgg dinañ ko am di soññ nag kuréel bi nga xam ne ñooy kuréelu xasida bi nga xam ne itam ñooy nekk ca buntu kër sëñ Fallou di fa jàng muy kuréelu Touba Sandaga di soññaa itam kilifa yi nga xam ne ñooy ñëw fii asalem di taxawu liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoo koy taxawu fële ci kër soxna si ñu ànd koog daayira Sandaga ak daayira Géejawaay di leen nuyu ci turu Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khodos mi nga xam ne moo yor kàddu Serigne basiiru Anta Niang mi nekk xalifab Cheikh Ibrahima Fati sëriñ Basiru yabal nu fii tey nu ànd ak sëriñ max Mahfus ci bis bii nga xamante ne soxna su tedd soxna su màgg soxna su yàlla baaxal moo ko daan jàpp di ko woote di ko màggal eh, sëriñ Basiru nañu na ngeen ci dem àndandoo ko ak sëriñ Mudu Mahfus ndax eh, sëriñ Basiru Anta Ñaŋ ku nekk kenn ku nekk xam na ne lii yàlla dogal mu nekk ko tey boolewu ko ak soxna Maymunatu mm-hmm. moo soxna Maymunatu ba ñuy nekk yàgg na mu nekkoon doomam nekkoon léppam nekkoon rakkam nekk yëppam euh, nekkoon it jëwriñam nekkoon it koo xamante ne ku ko déggal la nekkoon koo xamante ne luñ déggoo ci lu baree bari la ndax doy na ci misaal rek ab taawam a ngi ci biir kër gi boo xam ne soxna Maymuna la ko tudde kon loolu rek doy na seere ci ne seenu nekk lu yàgg la moo tax mu yabal ma man ak sëriñ Abdul Xuddoos ne ñu ne ñu dem teewe jataay boobu ndax jataay la boo xamante ne sëriñ Basiiru Antaña nee na mi ngi ciy soññi mboolem taalibe bi borom Daaru Muxti yëpp ak fuñ mat di nekk ci àdduna ñu xam ne bis bi seen bis la ndax soxna May kat eh, ginnaaw bi nga xamante ne nekk na ci eh, ronuk kippaaruk Seexul Xadim ba noppi it da ko jébbalaatoon borom daaru mu nekk ak moom kon léppam borom daaru la kon lu ñuy def ci ay njabootam njabootu borom daaru ñoo ko taxawu ñoo ko war a taxawu ñoo ko war a sàmm ñoo war fexe ba na ko sëriñ bi bëggee mu mel noonu kon sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo njabootu borom daaru yëpp ñu dikk ci eh, ba ca des lu jar a màggal la ndax léegi rek ci yoon yi maa ngi koy wax ma ne Eh, jigéen eh, am na lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon am na loo xamante ne bu ko sàmmee sàmmi julli juróomam eh, sàmmi as sàmm asakaam sàmm kooram topp ndigalul borom këram bu dee dem àjjana kon moom àjjanaam yomb na waaye ñu gis pas-pasu soxna May mu dem mu mel ni dafa romb loolu lépp ndax tey bu màggalooloon soxna jaara kenn du ko laaj bu màggalaloon sëñ Tuubaa kenn du ko laaj waaye jigéen ju am pasteef tegu ci diine tegu ci lislaam ba mën a xool guddi gi nga xamante ne suñu borom wax na ne moo gën a màgg junni weer nga di ko màggal loolu pas-pas mënu ko weesu kon pas-pas bu dëgër boobu nag la ñuy soññi ñëpp war naa tax ñëpp jàpp ne xam ne kii kat ku nekkaloon yàlla la xam ne nitu yàlla la ku ko nekkaloon koo xamante ne nekk gu amul benn werante la kon nag mu ngi ci woo ñëpp bis bii ba mu koy sos ma nga daaru musti kon mi ngi soññi taalu bi nekk daaru musti ak daaru marnaan ak daaru wahab ba ci dëkk bii tey nga xam ne mooy capital yoonu murit muy jox ndigal képp ku aju suñu Seex Balla ak foo ci mën a joo ak foo mën a nekk na nga xam ne ndigal bàyyi ko na ci mu ñëw ci yow lépp loo daan ci def ci bis mi na nga ko yokk te xam ne suñu bisa nan ko waajal bu baax a baax ci jàng alxuraan ak xasida ak berne yi ak addi yi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi ñu ngi am mbégte dellusiwaat tey jii ngir di leen yëgal bis bi nga xamante ne bi am lu dul moom mu di bisu leetu xadar loolu nañu ñu ko def ci ndigalul ak kilifteefu Cheikh Amadou Mahfous mi nekk si suñu ginnaaw tamit itam ko def ci ndigalul ki nga xamante ni tey jii moom fi Serigne Touba mu di Cheikh Mouhamadou Mountakha di nuyu ak di ziar bu baax a baax sunu mbokk yi fi nekk jóge Daaru Muxti di leen jubbante ci sëñ ak ki sëñ Maam Thierno nga xam ne bis bi ñoo ko sëñ Modou mi ñoom ñoo ko bokk te te tëpp leen ci benn yoon yéene ñu di ci woo mboolem mbokk jullit yëpp ñu di ko amal le 28 avril. fii ci Touba muy dëppoo guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ren ji nag sëriñ bi mu demee ak Sëriñ Muntaxa daf ko ne lépp loo ci daa def na ko yokk kon ñu xam ne bis bi ren jii noonu la taxawee te bis bi daanañ ko wax fii ñun dañ cee doon dara dañuy sàmm rek ki nga xam ne nag moom moo ko moom sos ko mu di soxna may daa am lu mu ci bëggoon ndax da ko defoon def ko ci ndigalal sëriñ Touba mu di Cheikh amoon Fadal mu ne ko kat da nga dem ba ci rey ay gileem jël bis bi ca guddi googee def ko ci xoli nit ñi ba nit ñi amatuñ ci sago soxna itam soxna si itam bëggoon ci jàng jàng bëggoon ci jàng xasida bëggoon ci teral bokk yi teral taalibe yi te noom gën a xumb moom moo ko gën a loon te loolu suñ borom may na ko ba tey ji bis bi bokk ci bis yi nga xam ne ci bis yi gën a rëy ci réew mi la bokk kon nag ren jiitam suñ mën taxaa wax sëriñ mi ne ko loolu ki daal def na nga ko yokk kon ñu xam ne bis bi nang ko daan defee ba taw di ñëwagut nu ko raw noonu lañ ko fa yéene defee cérémonie officielle bi nañ ko daan defee lañ ko defee dara du ci manqué mbooloo mi ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di xaar képp ku di murit képp ku di jullit ñu ngi lay xaar daare kaamil yi jànk di xasida yi bàyyiwuñu kenn kon daanañ xam ne bis moom la ca borom bëggoon muy at mu nekk muy yokku sëñ Tuubaa defal ko ginnaawam nga xamante ne bii fi mu toll nii euh, dafa euh, jéggi dayoo sax loolee nag tey ren ji sëñ bi boobu taxawaay la amaat kon ñu ngi woo mboolem mbokki jullit yi di woo mboolem mbokki taalibe yi di ci woo itam ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ŋànk réew mi ci wàllu àdduna mu di président de la république ak mboolem ñu koy jàppale ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf noo ngi tàmbalee sunuy kàddu kàddu yi siyaar ci weeru tedd bi nga xam ne mooy chahru ramadan al mubarak chahru rida wa rahma di ñaan ci sunu borom tabaraka wa taala al ali al qadir mu defal nu ndimbal tawfiq ba nu def ko na mu a rafete suñu borom nangu nu liggéey yëpp di ñaa nit sunu kilifa yi nekk ci sunu kanam di a cheikh Mouhamadul Muntaxa xafidahullahu wa raahu sunu borom yàggal ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa ci njabootam yéen ko ko liggéeyal ci taalibin yéen ko liggéeyal diiney islaam mu def ko na ko bëggee te nu ànd ko moom di ñaanal suñu waajuru bopp di Cheikh Mouhamadul Bachir mi fi nekkal maam Thierno Ibrahim di sëñ Bachir Anta Niang nga xam ne bi ma jógee ci sëriñ bi ba ba mu jox ma ndigalal saxal bis bi te woote ko te taxawu ko te def ko nu raw ne ma ko daan defee moom it dem naa ba ci moom mu yeesal ay ñaanam yeesal ay ndigalam ci bis bi moom sëñ Bachir Anta Niang ni ko sëñ Mahmoud doon waxee ku ne xam ne diggante mag soxna may mën a Mbàkke muy diggante bu yàgg lool ah sunu kilifa bopp di alxaaji maam Thierno moom itam noonu bi ma jógee ci sunu kilifa yooyu dem nañ ci moom moom itam mu feddali kàddoom yooyu feddali kàddu yi sëñ Basiru Anta Ñaŋ yi sëñ Muntaxa ànd ci nun ba yebal doomam ji ay Cheikh Sidi kon nag bis mi noonu ko waxee rek daanaka man li ci matoon wax lépp sama bokki bopp yi wax nañ ko kon nag dellu di sant yàlla rek di xamal bokk yi ne bis bi moom nun njaboot soxna may dañ fee nekk nekkal leen fi waaye li ko ak Cheikh Mamadou Muntaxa ak mboolem njabootu sëñ Touba eh, ba ca jëwriñam bi sëñ Sidi Mbacke ak mboolem njabootu seexul Khadim gépp bis bi seen bisu bopp la ndax soxna May eh, bi mu daan woote bis bi liggéeyal sëñ Touba rek la ci jublu ànd koog mboolem njabootu sëñ Touba ànd koog mboolem taalibi sëñ Touba kon nag eh, noo ngi koy fàttali ñëpp di ca woo ñëpp na ñëpp xam ne bis bi seen bisu bopp la fas nañu yéene incha allahu taala. Eh, na ko soxna si bëggee woon eh, daan ko ni defee lu mat lu ëpp juróom fukki at te njëkk muy làqu it bu fekkoon te ne man ak soxna Bali noonu ñu mu fi bàyyi woon jaratulaay soxna Mariama Bousso mi ñu fi bàyyi woon bu sàkkoon ci nun ngir nu da ko màggalal bis mu fi bis bi mu fi bàyyi ko def loolu na ko bëggee bu sàkkoon ci nu da defal beneen bis wala bis bi mu feeñee àdduna it daan ko def na mu ko bëggee waaye li mu sàkkoon ci noonu jox nu ci ndigal mooy guddi gu tedd gii nga xam ne moo gën ci guddi yi te muy daan ko màggal ba def ko juróom fukki at ak lëf nañ ko wéyalal liggéey boobu def ko addi euh, di ci liggéeyal sëñ Tuubaa di si jàng alxuraan karim loolu moo sabab bi mu làqu it maag soxna Bali nu sax ca loolu nekk ca nekk ca ba son borom jëfandikoo la ko sob ci soxna Bali njabootam gii fi nekkee di sama di sama doom yi bopp it ma ànd ak ko soxna si bëggee woon ak noonu ma ko ànd woon seen wajur kon nag loolu rek la ñuy fas yéene wéyal di ci woon di ko yëgal bokk yëpp mbokki tubaay yëpp mbokki Daaru Moxti yëpp mbokki Daaru Salaam yëpp ak mboolem ku aju ci yoon bi di ko yëgal it mboolem taalibe yi ak njabootu sëñ Touba gépp ndax sëñ Touba njaboot gi mooy njabootu deret njabootu pas-pas ñëpp ku ne si nga xam ne bis bi sa bopp la ni ko Cheikh Abdou waxee nga xam ne ñoom lay sunu borom dénk wàllu àdduna ci seen ci teg ko ci seen it ñoom indi leen ko yëgal tàmbali ci président de la république ak mboolem ñoom ko sexel di ñaan sunu borom def na ndimbal ak tawfeex di ca di fàttaliku it jàmbaar ji nga xam ne di ba sëñ Basiru Sarr rahmatullah alayhi ko ci amoon taxawaay la diirub li fi nekk soxna si nga xam ne yaari ganaar yi soxna may njëkk a def ab reer ji ak ma Mamadou Fadal moom moo dogoon ci ne dana ko def ñaari junni ganaar te noonu la ko saxal noonu la ko saxal ba soxna si noppee gis soxna si wéeru fekk sama kanam fi kanam soxna Bali loolu ñu ngi koy ñoo ko ci fàttaliku bu baax a baax a baax di ko fàttali njabootam gi yëpp kon nag loolu rek mooy woote bi daara alxuraan yi nga xam ne. jot nañu sunuy bataaxel jot nañ sunuy barkeel ñoom ñëpp it maa ngi leen soññi si njàng mi ni ma ko waxee si bataaxel kenn ku ci nekk euh, pas-pas boo ca daan am ak taxawaay boo def nga dolli ko lépp ñu def ko addi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addi Cheikhul Khadim addi Soxna Maymuna Mbàkke maa ngi sant ñëpp di ñëpp euh, ñi dëkk ci dëkk bi ak taalibe itam ñu xam ne gan gu fi dëkk seen gan ñu fas yéene laxasaayu gan gu dëkk ñu teeru teral ànd ak tey ak teggin yéen a ngi jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah la li nga xam ne nag mooy doxalinu bis ak taxawaay bis bi ni ma ko baaxoo di lépp teg naa ko ci loxo Cheikh Abdoulaye mi xam ne mooy tawub kër gi moo yor organisation bi ànd ak euh, sangam yii di Cheikh Sidi Moukhtar ak ak gone yi yëpp ñu ànd ci liggéey bi rek ñun fas yéene nga xam ne noonu ay mag lañu waaye nag noo euh, ngi ñaan ngeen wéyal liggéey bi euh, lépp luñ ci yéene woon lu ma ci daan jëf maag soxna Boye li ngeen fas yéene wéyal di ko def rek incha allahu taala yéen ngi jëf yaa xayra day fil aadaa